dama dégg léegi nga ne Tigo is back. Mhm. Tigo waaw is is allah. Tigo is waaw bu baax. Mhm. ce qui veut ne gars yi. gars yi waaw nañ ma xaar. bu baax. bu baax a baax. ku jël avance bi. laay lay la laa dootoo ne la mafia topp sama ginnaaw tooyal bi. dugg ci biir géew bi yow yaa ci fi mu toll ni ñoom may ñu ma dara ma du leen may dara. waaw. kon dootoo ko defati ci àdduna. léegi nag kan moo war a mën a ñëw na jël avance bi jàkkaarloo kii. wa man sama adversaire bari nañ ci lamb ji lis Ndiago sama adversaire la bu jam gën si kam mbaaw Liss Ndiago bu jam gën écurie jam gën si kam mbaaw billaahi wallahi tallahi mako mën mako ko ëpp doole may ma tuti man dama déssé comprendre lis Ndiago numéro 2 nga wax wala lis Ndiago junior wala bébé lis Ndiago wala hmm. dañoo daje mbapat man ak mom mu seen ma tekki sërëm jam gën waaw mu seen la nga seeti ko bu la nexé nga seeti ko tekki bari wul boy nak boy wax yooyu moy la mbay fay moo ma li may wax nii ci tele laay waxee du duma wax topp sama naf su bakkan bi dañoo daje jàmm gën tournoi mu tekki sërëm bëriwul de attention attention le mbër de Ndiago Liss Ndiago mu ngi déglu yaa ngi may seetaan Liss tournoi la ñu daje mu tekki sërëm laaj ko kan mooy Tigo xam na ma mbéy kay fay ma yóbbu léegi pour le retour de waaw ma su paree pour bëreeg man pare naa pour bëreeg moom. waaw xam nga ko bu baax. xamul dara déedéet eh, déedéet déedéet du ma fi tonga nga ma xamul dara. ah non tout sauf ça du ma fi tonga nga ma lis Ndiago xamul dara. ci sama kanam man. xam na dara ndaanaan la. waaw ci sama kanam man. bërekat la kat la ambianceur la. bu ma ko maa ko dàq fecc bu ma ko songee lamb ji jeex maa ko ëpp doole Ndiago. ah foo ko songee foo ko songee ji jeex. juróom ñii dama bëgg nga déglu ma. waaw nga ne Liss foo ko songee lamb ji jeex ñu takkal sër nañ ñu woo bu neexee nga nga ñu invité invité na combat bi taxaw jarul combat bi taxaw bu la neexee yow nga takkal ñu sër woo ñu géej ñu taxaw ñu contact du am ci man dëpp Tigo ñeme nga jël avance <laughs> pare naa ñeme nga est-ce que ñeme nga yow pare naa ah, pare nga pour jël lis Ndiago waaw pare naa fépp d'accord kon Liss ñoo ko déggandoo Tigo mi ngi sa kaw ak kan nga ak ak caatu rëbës men kooku mooy la waga de rëbës. woy sama ndey. ay tapet lañ duñ def dara. du ma fi toog naan ma caatu rëbës la. caatu rëbës kan la kan la fi daanul ay moromam la fi daan. kan la daan dëpp dip. kan ci gën a tëj ci ay moromam la. bu sita bu sita man mii. bu sita bu sita laasana bi yaay mii moom moo ko mën kii sama côté. moo bu sita comme comme daan ñëpp. booy booy booy. ku mu daanul. bu après nëb daanu fi kii bu ndaw. bu Siteu moog Tigo laa wax sama turandoo. billaay wallaay talaay Tigo 2 fu mu ko jàpp da koy da koy daan. ñëwaguñ sax ci bu Siteu ci instant bi ci caatu bés lañ nekk. caatu bés waaw yaa ngi may dégg da nga ma ne kan la fi daan. kan la ne la ay moromam la fi daan ay. matul xarum tabax si matul xarum tudd caatu bés. caatu bés yënguwul yëngu. avance am duggoon nga jël. suba ñoom waaw ñoom ñi ma lay wax nii boo paree ma leen limal kenn par kenn. caatu rëbës laa bu fi dugoon nga jël. avance su caatu rëbës moo ñu ko teree nii ba ma ko joxoon nii dañu leen fee ci tànn yaasin jënd ci mburoog toog. Tigo loo mën ci caatu rëbës lan bu arbitre sifflé woon tey may ma tuuti may ma tuuti may ma seen diggante. maa koy fekk ji maay dox ñaatam ñaatam dóor songu jàpp daan man maa koy def caatu rëbës. fi ngay <laughs> li waxee c'est très facile. seet naa kon yow daa mel ne xama xama. xamaa la xam mais dama xam booy rëbës bi dama xam l'espoir de rëbës. ay tapet lañ. gars yooyu pare wuñu. Ah, kay aka moo kan moo pare. xale xale doole caatu rëbës. bañ na ko ba day jógee fii day jógee Sénégal dem ba Gambie uti doole. na ma jël. ma daan ko. waaw caat ñoo ko déggandoo de tigoo xaritu yaa tigoo. tigoo tigoo caatu yaayam mi ngi sa kaw waaw. waaw bu la jëlee caatu Rebeuss bu ma jëlee daan waaw. Ah, ak kan ak caatu Fora. mbër laa lay wax de. le tarkinda booy. booy bàyyi di ma wax ne caatu Fora tapet la. day dafa jaar gauche caatu Rebeuss caatu caatu Fora jaar droite. day wéeru. wéeru wéeru wéeru wéeru kat la. day wéeru day wéeru ci ginnaaw nit. caatu Fora ci kan la wéeru. bari bari na bari na barki alxuraanu caatu foora xàll yoonam kan la daan di dajji kan la kan la daanu ñoom daal benn nit lañ fi lañ fi jàpp caatu mi nga ñoom benn nit lañ fi jàpp laa la wax sa waay ku ku daan alsa alsa ku ko daan alsa muy ngëp ngëp nëb nëb dafa dugg lansaar dégg may ma tuuti may ma tuuti tigoo may ma tuuti nëb dafa dugg lansaar ba rek bàyyi ndëri bëri bàyyi ndëri daan ko caatu foora jël revanche par procuration bëri ak nëb daan ko uh-huh. ngëpp man bu ma daanee man man bu ma daanee bu ma doon egsi ci koñ bi dañ may rendi ngëpp koo xamante ne biceps eh, eh, kiwi nii la toll nii lii. doon na mu tartan kan la door eh, moo ko daan. nëb moo fi daan bàyyi ndëri. yow waaw yow bàyyi ma ngëpp ngëpp. moo fi daan mais xoolal léegi xoolal xoolal xoolal sax léegi ci caat fora lañ nekk laa nekk waaw du mbër tapet la. xam nga la laa lay conseil mhm.

ñun temps rek lañ lañ lañ lañ xam boo yaa ngi nii boo bëggee ma jàppale temps temps léegi même pas i trois trente. <laughs> doo génn gaaw ñëwal. rago gu gu sagul nag gone yi <laughs> dañoo man loolu après loolu après d' accord. mais mais mais dafa complet maa ko mën caatu fora dafa complet ñi ma lay limal nii maa leen mën. caatu fora maa ko mën ma waaye nit boo ko sutee yaa ko mën. ñaata mbër ñoo fi su Papa Sow mu bëreeg ñoom seen bi waaye attention. li Papa Sow di entraîné ak ak ni nit ñi. Modou Lo tollul nen ña ñaata géant la fi daan. caatu sora maa ko sut maa ëpp doole maa ko gën a pare mbër du xees mbër day ñuul kuk bane du xees mbër day mel na këriñ ënn waaw man maa la ko conseil pare naa pour pour bëre ak caatu foora caatu yaa ngi may dégg est boo ko jëlee dina la ji. kan <laughs> dama leen di rangalee ñi ma lay limal nii. est-ce que attan coow. avant tout coow wu caatu fora. coow li attan nga ñaar ñi de. man waa P bi ñoo nekk sama ginnaaw ragaluma dara bu ma may ragal toog. le tarkinda dama ne coow li est-ce que attan nga ko. tarkinda bi cité la. jàmm gan amul cité muy magu caatu fora mooy nijaayu caatu fora. li ne ci cité nekkul ci kenn ci ñoom dañuy wéeru ñoom ñëpp dañuy wéeru. dañuy ay mbër. ku def 6 combats 4 victoires 2 défaites nga ne day wéeru. sama wax ma mbër wax wax wax ma mbër jaadu fora bu ko neexee ñu bëree biir fora fin fan nag yene moo ñooñu man bi may bëri mbapat bu ma gisee dañuy ruux du ñu bëree man ay bàyyi njaga laa doon bëreel mbapat war nga xam Ameth kan doomu doomu papa kan ñëpp xam naa ñi ngi ak ak ñoom man dama nekk ndaw nekk seen biir di xoos di leen daan ñu may daan amee pré pré pré pour Thiatou Fora pré naa waaw ñett ngi noonu baax na kon Thiatou Fora sa waaye mi ngi sa kaw euh, euh, on avance euh, yaa ngi Thiaroye ah? maa ngi Thiaroye waaw question bi ma lay posé yow bokkoo ci Thiaroye kan moo fi dàq bëri Thiaroye fii Thiaroye fii ki fi dàq bëri doomu jàmbur la doomu jàmbur moo fi dàq bëri Caaroy wërngal këpp doomu jàmbur moo fi dàq bëri. moo fi dàq bëri. d' accord maa laaj nga tontu euh, rakk ji question ma lay posé waat yow bokkoo ci ah. làmb ji wërngal këpp kan moo fi dàq bëri. làmb ku fi dàq bëri Bébé Saloum. Bébé Saloum moo fi dàq bëri moo fi dàq bëri. daka a bëri. trop. daka mën a foo laal ci yaramam day bëri. loolu wax waa ji naa mu ne ma ñaari tànk laay bëri. foo laal ci yaramam day bëri. moo. mais nag ci làmb ji. moo dàq bëri ci làmb ji. waaw. d'accord non no maa laaj nga tontu am nga droit ne ma grand bi kii moo dàq bëri ci làmb ji. amul leneen. Bébé Saloum moo daq bëri ci làmb. Bébé Saloum moo dàq bëri ci làmb ji. defal ma sa top 5 juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji Bébé Saloum ak kan. bu juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji Bébé Saloum moo dàq bëri ci làmb ji doomu jàmbur doomu jàmbur Balla Gaye Modou Lo ak Ama ci làmb ji Bébé doomu jàmbur Ama Sène Modou Lo ak kan. Balla Gaye 2 ñoo daq bëri ci làmb ji. Euh, mbër euh, bëre fit entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo ci mbër entraînement mooy péri hésité woo sax déedéet loo liggéeyal doo ko fayeeku bëre fit entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo nga ne ma entraînement entraînement mooy pee léegi yow nga bëre ji un jour ñu ne la allo Tigo fa réglement bu bees bu wàcc yow sa bëre sa fit sa entraînement sa gallaaj foog nga bàyyi ci benn ñett yi ñooy dem làmb ja benn bi day des euh, ban ngay bàyyi ma ma ma bàyyi lan. bëre bi fit bi entraînement bi gàllaaj gi nga war a dem làmb ja ñu ne la ñetti yi ñooy dem benn bi ngay bàyyi benn bi du dem làmb ja ngay bàyyi. damay bàyyi damay bàyyi entraînement bi. nga bàyyi entraînement nga yóbbu bëre fit ak gàllaaj. nga bàyyi entraînement bi. waaw kon entraînement amul solo. en yi am na solo bu baax mais mystique fi mu toll nii dafa nekk quatre-vingt-dix pour cent ci làmb. waaw quatre-vingt-dix pour cent ci làmb. kon daal bi ngay bàyyi. bu baax. lu tax mënoo bàyyi bëri. non mais parce que bëri bi bu xasse ba nek ci sa yaram rek mu ngi mu ngi sa yaram. non comme suuf si bëri bi du dem. mystique la ñuy non da ngay bayyi ben ben bi ngay bayyi ben bobu day manquer su bobu nga ma entraînement ngay bayyi entraînement lay bàyyi lan moo tax mënoo bi. wa bo bayyi entraînement ma bi kay da nga yobbu bëri. non damay dama lay laaj maanaam lu tax mënoo yóbbu entraînement bi nga bàyyi bëri bi bi lan moo tax ko bàyyi su ma bàyyi entraînement bi yóbbu bëri bi. bi ok bay fit bi. fit ah fit nag lu la mayul lu mu la mayul dina ko xañ. Euh, lu tax mënoo bàyyi gàllaaj. Eh, mooy pie top maa la wax loolu. <laughs> coo jibul maa laaj nga tontu. on avance. Euh, rakk ji euh, yow bopp bi nga dalee bëree ba tey mbapat ba arène ban victoire moo la gën a neex sa carrière. victoire bi moom gën a marqué sama carrière mooy baag baag bàyyi tafatin bobu dal la beureji ñew ñëw tekki fi sama ngemb sam-sam ciaro yi tekki fi sama ngemb dal ne ah tay nak neexu ba neexul me jambar la mo xol ko sama bop man avant nit ñee ma wax ne ma ki jambar la man wax na sama bop ne tay jambar la e bi nga dalé beure ba tay mafat ba arène ban defet mo la gëna metti sa carrière defet bi mom gëna metti sama aduna, moy sama combat arène bi sa ciatu caatu maalo waaw du ko fàtte mukk ba mo gën metti sa carrière waaw parce que dama teggi sama natt def ci booy daj fii booy def ay simb fii ci koñ bi taaral bés jox ma ñu def ci lépp dem fi ñu war a dem lamb jo est-ce que ngemboo ma lu mat huit cent mille ci mbër mu ndaw fay ñu ma lu dul deux cent mille gisuma avance bi ba tey reliquat lekkuma ko